yaa arxama arrahimin yaa rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi amaan mbégte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 ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay xat-xat moo xam yum ca man di doon borom bi subhaanahu wa taala man na koo teggi yal na leen ko teggil defal leen ak ubbeeku ndax léeg-léeg nit di dund ay xat-xat yooyu léeg-léeg sax nga gis ko muy ku ruur ku bëgg ci kaw te fekk biir ga wut noonu waaye borom bi subhaanahu wa taala moo yor sutura kum suturaal rek suturaal la sa bopp waaye jekkeeti di wax naan li ngeen foog amut xaawi sab sag la xawisa sutura la moo tax ku yebu bàyyi noonu ci biir rek am na ñum taggoon ci alquran wax ne lil fuqara alladina uxsiru fi sabilillah ca aaya ja am na lum ca waxoon ne e, yaxsabahum jaailul axniya jaailul axniya min a taafuf waaw kay nee ñi nga xam ne dañoo ñàkk sax buñ leen gisee dañuy yaakaar ne jeexaluñ dara te ñoom yàlla nee na ay faqir lañ waaw fekk ñoom Euh, laa ilaha illallah moom kenn xamul rek la ñuy dund nañ koy dunde waaye nee na ki xamut bu leen gisee yaakaar ne jeexaluñ dara waaye lan moo tax mu yaakaar ne jeexaluñ dara ndax dañoo fegu dañoo fegu am na koo xam ne kuy xaar mu ñaan la nga soog koo may doo ko may mukk ci àdduna waaw parce que foofa moom bu fa àggee rek faatu na bu fa àggee rek dee na wet te wut ne nag nit dana am soxla ñaan ko ñam ko war a ñaan du loolu laa bëgg a wax waaye ala kulli haal am na ci nit ñi ñooñ e, léeg sax nga fooge leen ne mën nañ laa e, taxawu ci mbir te fekk yàlla xam na ne mënuñ ko loolu am na ci biiru mbokk am na ci ay jàmbur léeg-léeg mu am ci biir mbokk ku ñu sikkale noonu ndax jàpp ne daa taxawu ñoom war a taxawu te fekk da leen a tene tënewut waaye sag baatax tax sag baa bum la tax a xaawi sab sag mukk nag waaw la tax a xaawi sab sag mukk wala wax ne lis gor di dunde yàlla bu ko saay-saay xam waaw ndaxte eh, loola day lu yéeme rek bu boobaa waaye loolu daa amoon ci penc mi ñoo ngi ñaan borom bi subxanahu wa taala mu yokk sutura soosu mu yokk sutura soosu réew mi réewum sutura la te te it bis bi yàggut bis bi yàggut bëccëg bi liñ ciy jaxasoo boo muy tuut liñ ciy tàqalikoo nga wéet yow dong ko ëpp te la ngay wéete nag yow dong yaa ko xam yow dong yaa ko xam te na ngay defee ba génn ci itam mën naa bañ a jafe. mën naa mën naa bañ a jafe defe naa loolu am na sax nu muy toll dootu jaralati nit muy dugg ci lu mu warta dugg waxuma sax ci li ñëpp bokk mu sàkkal ko pexe waaye da jarati sax mu suufeel boppam wala mu foye boppam te ko xool penc mi léeg yooyu am fi yooyu am fi ba noppi nag naqaree waxtaane ba noppi naqaree waxtaane ndax ni mu ni bindoo moo tax ala kuleyal yal na yàlla yokk sutura loolu euh, as gor daan na ko ñaan waaw ab jullit sañ na koo ñaan yàlla nañu ko yàlla defal fii ci àdduna defal ñu ko àllaaxira yàlla bu benn sag sàggeeku waaw yal na yàlla yokk sag yi waaw ndax ab sag baax na bu kenn sàggee sagub sa moroom boo fi nekkee di sàggee sagub nit ñi bis dana ñëw sab sag sàggeeku ne fàng ci penc bi moo tax bul xam ni yëf yi toll nga daal di koy génnee waaw déedéet ëpp naa def ñoo ngi siyaare ñëpp di nuyu yaayi almisbaax yëpp te di leen bége di beral ab nuyoo soxna Biige Saw suñu yaay la ca bañu door a tàmbali jotaay bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax xam naa dëkkuwaay baa xaw a xëcc ak ñun léegi rek ak doon doom ju ñàkk positif moo tax ñu gëj a gise waaye ñu ngi lay siyaare bu baax te di la nuyu di nuyu suñu jigéen euh, soxna Daba Jaane mm, mm, tey rafetlu taxawaayam ak jëfam yu baax yooyu léeg-léeg am ci yooyu fu ñu rek mu ñu fekk ko mu fekkuñu fa ñu dégg ko yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla fay fay ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi taxawu lislaam di taxawu daara di taxawu ñooñ daara soxna Daba moom mën naa ko wax ndax xam naa ko mu xam ma te loolu mat naa ci seede am ñoo xam ne nag seeni jëf moom donte man xawuma leen eh, ñoom itam xëy na xamante wuñ xamante gisante waaye nag foo nekkee di ko gis ndax am na ci jëf yu rëy yoo xam ne ka koy def te yàlla tax jantub digg bëccëg lay doon boo ko déggee nag te dif gor te teraanga saf la fa nga toog da koy ñaanal borom bi gën koo yokk gën ko koo man loo te bañ caateeg ay baat nañ mooy tandiku loolu waaw ay jamono maa ngi ciy waxtaan ak menn mbokk mu ne ma alaaji njuga kebe ba ñuy dégg jëf ju ju muy jëf ci lislaam ak ci diine te am ñoo xamante ne somi xaalis yooyu xajut ci seen bopp dañoo tàmbali ne bërëb sàngam la koy jële nangam lay def nangam lay def na ngeen ko xame woon ñu xame ko noonu ba sëriñ Abdul Ahad waxoon ca waxam ju rëy ja loolu nag li la ciy musal mooy jëpp jëf ju baax joo dégg nit jëf ko te nga xam ne yow boo amoon def ko na ko ñaanal borom bi subxanahu wa taala nangul ko ko te fay ko te nga yéene ko ko bu ko defee rek nga daal di am tiyaaba ju toll ne ji mu am mooy ju mel ne jiñ dégg e, sëñ Ablaye Ja def ko fële ca jumaa ji ñu wax ca daarul moxti ma koy dégg ca jumaa jële ca daarul karim ak yeneen barabi lislaam yëpp boo ko déggee nga ne waaw góor yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla nangul ta baril ay kemam ndax bu imaam di xutba ca jumaa ja day wax ne koo xam ne boo amee doole lislaam am doole yal na nga am doole koo xam ne boo amee doole xeexe ko lislaam yal na la yàlla xañ doole kon nag koo xamante ne lam am ma ngi koy bokk ak lislaam ñaanal ko wàññiwut dara te loolu euh, boo ko defee boo ko defut borom bi subhaanahu wa moo koy yokk ndax wallazina jaahadu fiina naxum subulana waaw mi ngook bu ko defee nag buñ noppee ci waxtaan wi nga xam ne moo jëmoon ci wàllu yërmande ak yi nga xam ne moo ci aju yal nañu yàlla defal yërmande fi dunya wal axira moom mi nga xamante ne moo yor doole te yërmandeem tax àdduna ne tekk moom mi nga xam ne moo yor kàttan waaye jëflante ko ñun mukk ndax kon du xaj ci ñun du xaj ci ñun ndax dooleem xajut ci ñun soldaar yi yàlla ye kenn xamul num toll wa maa yaalamu junuuda rabbika illa huwa waaw sa soldaari yi borom moom doo nga xam ni mu toll xamoo ne yàlla weñ naaw sax ci élément mi lañ bokk ci soldaaram si lañ bokk bu la déclaré woon guerre weñ yi dong mënoo cee génn waxumaa geneen waaw rek yooyu nag laa ilaha yoo rek fi mu ne am na ñoo xam ne buñ la waxee àdduna si budget bi ñu budget bi ndax yoo ay milliards la ci ay moustiquaires ci ay garab yooyu garabu yoo bu mooy bu lingaaru bi rek bu dëng bi ñenn ñi di pomp yoo yoo fi mu ne soldaar yàlla la bu yàlla yebaloon yooyu rek jox leen digal mënoo cee génn waxuma nag soldaar waxuma soldaar yor ay chars de combat de yoo la yoo weñ ak yoo nga xamante ne lu ndaw lañ waaw gunóor yi doore ñëw ñu mbóot yeeg sànqale ñi waaw janax yi yooyu yëpp ci soldaar yàlla yi lañ bokk ba ci yow sa bopp sax bu neexee borom bi nga doon ab soldaaram ku mel noonu nag eh, eh, yërmandeem moo tax nit di ko tooñ ba noppi mu di ko seetaan ndax olofanaan naan sàcc bu dul raw jër te yàqi nelaw nga xam ne ñaaray am kenn ki borom bi da koo yeexe mu am xéewaluk tuub delluwaat ci ginnaaw ca lam doon def waaw kenn ki nag moom da ko yeexe mu gën a diis day tax rek duma yi gën a gën a porté waaw waaw sax léeg ñuy liwaatoo di jege si waaye li ñuy jege si lépp dañuy natt kuu bi rek ndax dañoo bëgg bu nee pàcc rek buntu feeñ waaw bu dóor bi dalee du doon cokkaas waaw teel lay doon loolu kuu la bokkut ak ay cokkaas moo tax sa nastadrijuhum ak innama numli lahum rek waaw innama numli lahum waaye borom bi nee na sàgganewu ma leen nekkul ne dama leen a mën na dama leen a mënta jàpp rawaguñ ma waaye dama leen a bëgg a bàyyi bañ gën a diis yal nañ ci yàlla musal boole ñu ci ñi nga xamante ne yeexe gi yërmandeem la waaye dimbali ñu bañ mën koo tuub ndax tuub gi day doon boobaa lu am solo yal nañu yàlla defal yërmande jooju nga xam ne moom lañ doon jéem a ñu jël beneen tomb waxtaan boo xam ne danañ ci waxtaan nga xamante ne mooy li ñuy wax sakina sakina mooy ak dal dal dal lay tekki di baat boo xam ne suñ mbokk El Hadj Malick Ndiaye fii ci rajo bi bëgg na ko lool xam na ba muy topp bind yi ba dégg sakina li muy tekki tax na fu mu waxee rek dugal ko ci ay waxam yal na ko yàlla yokku wér defal ko mboolem ñi nga xam ne ñooy personnelu Sud FM seen rajo suñ mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandool fii te ñëpp di suñu xarit nag loolu la yàlla dogal ñëpp di suñu xarit ñëpp waaw góor ak jigéen yéen a xam li ngeen bëgg yàlla leen ko yàlla defal ci cofeel geeg yëg-yëg bi nga xam ne am ngeen ko ci mboolem ñi nga xamante ne ñoo fi liggéey rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy jéem a wax yàlla nee na yonent bi nee na ci sagoo beeg eh, safoo gi waaw kenn daal ñu ciy diingat ak di dal ci suñ kaw mooy saa njàmbur moom moom mooy saa njàmbur rek jàppun njàmburam ci li ñuy wax <laughs> waaye maa ngi koy nuyu asakina nga xamante ne ak dal lay tekki danaa ci indi lu mat juróom aaya ak juróom benn xadis wala bok juróom benn aaya ak juróom-ñeenti xadis ak juróom-ñeenti waxi borom xam-xam yi incha allahu taala ci li nekk suñ kanam ci ay bis baat boobu nga xam ne siin lay doon ak kaaf ak nun day baat bopp day tegtale day tegtale lu wuuteeg bari ab yëngutu ittiraabi wal xaraka nga xam ne buñ ñu waxee sakana sakana shay'un mooy loo xam ne ida zahabat xarakatuhu maanaam baj-baji ba daa dañ baj-baji ba daa dañ loolu mooy li nga xam ne mooy eh, baat ba la muy tekki waaw euh, boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy jàngale lakku yaaram wi baat bi ci wàllu luxa indi nañ ci yu baree bari indi nañ ci yu baree bari ci baat bi nga xam ne mooy tekki baat bi moo waxoon léegi euh, moo tax mu ñëw ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu doon wax naan yaa miskinatu alayki alayki sakinatu waaw mel ne ku koy wax ne ko gis nga miskin sakina maanaam <laughs> tumuranke ga ñàkk ga baat ba day mel ne day dellu ci baatu dal ga muy dal toog ne tekk euh, day delluwaat ci baatu dal googu waaw danaa ci ñëw danaa ci ñëw boo demee ci waxi abdullahi ibnu mas'ud ja ma ngay wax assakinatu maghnamun waaw wa sakinatu allati taxmiluhu al malaika waaw mu ne li nga xamante ne mooy sakina am koom la waaw ak dal am koom la ak dal baax na lool loolu nag moo xaw a jafe léegi da nga gis koo xam ne am na xam-xam waaye dalut ci njaboot gi sax la nga am ci koo xam ne dalut tell tell tell tell waaw mu ne eh, léeg-léeg nga dëkk ci barab boo xamante ne buñ doon këpp bool dong ka ca waañ wa rek bu doon raxas waa kër gépp yëg ne day raxas bool ya kandang kandang kuddu ya keleng keleng tell tell buntu ba mu faraape ko buy dox dal ya nga dégg karaas karaas nga xam ne moom maanaam daluk bind da cee amul dara far daluk bind da cee amul dara waaw boo dëkkee moom bu yeewoo ñëpp yeewu mhm. bu ñëpp bu yeewoo ñëpp yeewu ak dal ak dal ab yar daan na ko def ci nit ak xam daan na ko def ci nit ak xam daan na ko def ci nit ko xam te yàlla defal la xéewal bari na loo xamante ne da dal waaw ko xamut tuut ne ñun nag dangay bari ab yëngu ak bari wax mhm. bari yëngu ak bari wax kon asakina euh, am na beneen baat bu mu dendal boo xam ne mooy atuma anina atuma anina yooyu baat yépp li muy jural nit ki rek mooy li nga xam ne mooy alwaxaar te mooy ak wegu weg mooy ñu weg ko borom bi subhanahu wa taala ma ngi koy wax ci alquranul karim naan fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin danaa ci ñëw waaye boroom xam-xam yi ba ñu firi aaya jooju eh, yàlla wàccee ci ñoom sakina dañ ne mooy ak dal la wàccee ci ñoom dal goo xam ne mooy daluk tuma niina akuk wegu akuk wegu dal goo xam ne dañ leen di jural dal gu du daluk yambare waaye dal goo xam ne dal gu ànd ak def li ñu war a def la ba noppi ne dégg waaw def guñ def li ñu war a def la ba noppi ne dégg moo tax boo ñëwee ci borom xam-xam bi nga xam ne ñaare su may tàmbali ab tem bay waxtaane baat bi danaa ko tudd ndax lim ciy liggéey muy ajur jaan yi day wax ne Eh, moom asakina moomu hiya maa yajiduhu alqalbu min altumanina inda tanazuli alqaybi wa hiya nuuru alqalbi yaskunu ilayhi shaahiduhu wa yatmainu wa qiila hiya zawaalu ruhbi nee na ak dal baatu sakina boobu li muy tegtale mooy dal gi nga xam ne day nekk ci xolum nit ki doon leer ba nga xamante ne du tiit nee na mooy mooy mooy koo xam ne daal sori na ak rek nekkul di tëftëfi fi wa nekkul di tëftëfi waaye ànd naa ko dal moo tax borom bi wax ko ci xare ba ne fa anzalallahu sakinatahu yàlla wàccee ci ñoom ak dal ak dal maanaam tiitatuñ xam nga tey boo tiitoon ne eh, lii dana daanu même boo toogee yaa ngi yoqamte ko di ñuut ñuuti wala sab xol a ngi xaar tell ji wala yat wi dana dal sama kaw wala lii dana daan sama kaw ki am sakina nag da koy jural mu am confiance waaye da koy jural mu am stabilité waaw te loolu nag moo koy jural nag mu doon koo xam ne dañ koy wekk waaw dañ koy wekk ndax ndax ku tiit boo ko gisee dootoo ko ñemeeti xaw ma dootoo ko dootoo ko ragalati ndax aw fitam dafee nekkut moo tax euh, imaam ibnul qayyim di wax ne attumanina wal waqaaru wa sukuunu alladi yunziluhu llahu fi qalbi fi qalbi abdihi inda tiraabihi min shiddatil xawfi nee na li nga xamante ne mooy ag dal li nga xam ne mooy ag wegu te mooy euh, personnalité li nga xam ne mooy euh, dal gu àndut ak tiit nee na yàllaa koy wàccee ci xolub jaam bi ci jamonoy baj-baj ci jamonoy tiit euh, ci jamonoy jaaxle bu ko defee ab xolam dal waaw ab xolam dal ku am sakina day doon koo xam ne stressé wut li ñu naan dama stressé noonu la ñuy waxee baat bi soxna aram stressé ah wala yu demee noonu nga xamante ne moom nekkut waaw di am eh, xel mu ñàkk dal wala ay inquiétude ah inquiétude man nag man nag de waaw baat yooyu nga xamante ne yooyu yooyu muy am loolu eh, li safaanub loolu loolu mooy ak dal loolu mooy sakkiina dal googu lay teggi nga xam ne day yokk nit ki ngëm yàlla waaye day yokk kattanu kóolu téem mooy xuwatal yaqiini wa shabaati loolu la koy yokkal waaw moo tax baat bi nga xamante ne mooy baatu sakina sakina danañ ko jëfandikoo ci ay barab am na ñett yuy ñëw sakinatu bani israila allati uxtuha fi taabuuti sakinatu allati anzalaha allahu ala qalbi rasulihi wal muminin ak asakinatu allati tantiqu ala lisaani gi nga xam ne moom la yàlla joxoon waa banu israil ci seen taabuut ba dal gi nga xam ne moom la yàlla wàccee ci xolu yonent bi ak ñi gëm te mooy fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin ak dal gi nga xam ne moom la muhaddisiin yi waxtaankat yi ak ñi nettali xadis di tudd moom sakina moomu dafa am li ñuy wax darajaat muy darajaatu sakina darajaatu as sakina dal googu nga xam ne moom la yàlla wàccee ci xolub ñi ko gëm day doon loo xam ne dañ koy tudde dal goo xam ne day indil nit ki ak fegu indil ko ak wegu am na ñetti dara darajaat bu njëkk bi mooy dal gi nga xam ne daluk ragal yàlla la sakinatul xushuuci hmm. am na koo xam ne dalam gi ne dégg ragal yàllaa ko waral waaw ragal yàlla moo tax bëreetut baj-baj waaw bëreetut tell tell rambaxut loolu meññit la moo xamante ne day dellu ci dalu gi nga xam ne moom la yàlla wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci aaya ji ma jàngoon léegi fa ansala allahu sakinatahu googu moo ko wax ne ko ala rasulihi wa ala al muminin bu ñaareel gi mooy dal gi nga xam ne moom la nit ki di am inda muamalati bi muhaasabati nufuusi wa mulaatafati l xalqi wa muraqabati l xaqi mooy dal gi nga xam ne moom la jaam bi di am ci jamono ji muy jëflante ci di natt boppam dal ci ni muy jonjonte ak nit ñi waaye amuk dal ci ni muy yëge ne borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy surveiller mi ngi koy fuglu dal gi nga xam ne moom lay àndal daluk ñetteel gi nag mooy dal gi nga xam ne allati tujibu rida bi ma xasama allahu aza wa jalla wa tamnau min chatil faisi mooy dal gi nga xam ne dalay yóbbe lu yàlla dogal mu neex la nga ne nit ci mën naa am lu metti lu dal ñëpp di tëbaka daanu moom mu ne tekk moom mu ne tekk ba mel ne dara xewut dal dal googu mu àndal ci yu am solo yi la bokk dal kon am na solo lool am na aaya yu bari yu ci wàcc am na ju ma doon jàng léegi am na ju ma doon jàng léegi tam nekk ci suratu fatxi waaye am na juma ma junjoon léegi te mooy dal gi nga xam ne moom la yàlla defaloon banu Israil ci seen taabut ga boo demee ci suratul baqara borom baa ngi wax naan wa xaala lahum nabiyuhum inna aayata mulkihi an yatiyakum taabuutu fiihi sakinatu min rabbikum wa mimma taraka aalu muusa wa aalu haaruna almalaika inna fi dalika la aayatan lakum in kuntum muminun la aayatan lakum in kuntum muminin seen yonent wax mandarga moomee ak ya nga xam ne moo ca aju waaye ci biir aaya ja nga cay fekk baat boo xam ne baatu dal la buñ ci duggee mu doon lu gudd waaye jeneen aaya ji ci topp ci suratu tawba borom baa ngi wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne laxad nasarakumullahu fi mawaatini kaxiiratin wa yowma unayni seen borom day dimbali na leen dimbali na leen dimbali na leen ci ci yu baree baree baree baree keroog bisu Unayni itam dimbali na leen lan moo xewoon mu ne is ajabatkum kasratukum waaw ba nga xamante ne bari waayu soldaar yi yi bari nañ ba yéem leen wala seenu bari yéem na leen falan tuxni ankum shay'a wa daaxat alaykum al ardu bima raxubat summa wallaytum mudbirin la ma ndax man damaa juum ci tafsir boobu ci kaw mooy borom bi nee na ma wàccee ci ñoom sakinatahu samak dal ma wàccee ko fan ala rasulihi ci yonent bi wa ala almuminin ak ci ñi ko gëm wa anzala junuudan lam tarawha ma wàccee leen soldaar soo xam ne seeni ba tegu ci wa azaba alladina kafaru wa dalika jasaa'ul kafirin ci suratu tawba geneen dal goo xam ne borom bi subhanahu wa na ko ci alquran te doon gu am solo mooy kero bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma ngay gàddaay ànd xaritam ba sayidina abu bakrin siddiq radiallahu anhu waa màkka topp leen waa màkka topp leen di leen xeeñcu seen mboor ndax bëgg leen a jàpp teg ci ñoom alal ju bari ci ku indi yonent bi muy dund wala nga indi ko mu faatu ndeysaan borom bi ne illaa tanzuruhu faqad faxat llah waaye id axraja alladina kafaru saaniya thnayni id huma fi lqaari id yaquulu li saaxibihi laa taxzan inna allaha maana waaye fa anzala fa anzala allahu sakinatahu waaw borom bi subhaanahu wa taala nee na ba ñekkee ci xunti ma Seydina Abubakrin Sadiq tiit ndax tànki yéefar yi ak seen kott kotti dàll ji mi ngi koy dégg ci xunti mi fi mu nekk ñu tiim ko nga xam ne tarafatal ayni rek seeni bët daju ci ñoom seen seen liggéey bépp yàqu seen liggéey bépp yàqu waaye nee na kenn ka kenn ka ndeysaan xoola waxinu yàlla kenn ca ñaar mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw kenn ci ñoom ñaar ma ngay wax àndandoom ba ma ngay wax àndandoom ba xaritam ba naan ko bul tiit bul tiit ndax yàllaa ngi ànd ak ñun moom ngay ñëw ci nit jàmbat ko say jafe-jafe léegi mu ne la yàlla baax na mu ne nga ne ko yàlla baax na ji moom bëggatuma koo dégg am naa sama xarit sëñ Ousmane Lo maa ngi koy nuyu dama ko ne dina baax ji moom sëñ bi léegi bu ma waxati dina baax ndax moom léeg-léeg moo may war a lijjanti te boo ko wooyee lu mbir rëy rëy rëy rëy rëy boo daanelee mun la ah dana baax de ma ne ko dina baax moom ba may jàng lañ naan la boo mokkalee sa bind bi lépp dina baax nga ne ci ba nëgëni rek te bu ma jaaxle rek nga dina baax loolu bu yàggee day metti waaye yàlla la waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi loolu la wax àndandoom bii di Seydina Abubakar laa taadan inna allaha maana loolooy dina baax yàllaa ngi ànd ak ñun yàlla nee na wax jooju damaa neex moo tax bi ma ko déggee ma wàccee ci ñoom ak dal dal ga kon mooy tiitatut tiitatut xam nga ku ñu dàq kuñ joxu pelante nga war a wujji yàlla ñu yàlla musal ci pelante ak yee ci aju yépp nga mën a tëdd nelaw ba biddanti sama xel dal na waaye boo tiitee xamul loo fay fekk xam ma guddi guy gàtt ci nit ñi waaye guddi googu yow sa guddi du ci bokk ki amuk dal nag noonu lay mel yal nañu ko yàlla defal nga xam ne danaan faax waaw danaan faax du cogandu du ñaar ñum seen ñuy waaxu mu jàpp ne moom la ñuy jël si waaye ki amuk dal day ànd akuk dal moo tax borom bi ne ma wàccee ci ñoom ak dal yal ñu ko defal defal ñu asakina ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen ndokkeel ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may ñu kendaluk jàmm ñaan ko mu nangul ñu suñuy jaamu te nangul leen ñaan ko mu defal ñu njéggaluk bàkkaar ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal bu baax ak suñu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 ci seen jotaay bii di Al Misbah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu